diini maska maskani dëkk bi mat naa bàyyee xel bu baax a baax a baax waaye dafa mel ni léeg-léeg nit ñi dañ koy fàtte léeg-léeg nit ñi dañuy mel ni dañoo fàtte ni Sëñ Tuubaa lañ dëkkal te àdduna leen di këf yóbbu leen ci yu bari yoo xamante nit waroon na koo jombale boppam nit waroon na koo rus waroon na koo ragal diggam ak sëñ bi waaye dañ cay ne di xàll xàll fi mu doon ni boo boo fi sarse woon camion yóbbu ko fa gën a lax ci biir Dakar doo leen noo bokk ay comportement ñoo bokk lu ñuy wax noo bokk lu ñuy dund loolu nag mat naa bàyyiwaat xel bu baax a baax dëkk bi ñor na boroom lool lool lool lool ngi mel ni néeg rek fi mu doon jigéen ñi bu ñu defaree seen néeg yi ba firi day taal cuuraay bu ñu fa fekkee gone muy toggantu suuf yaakaar naa bu ñu la xullee waxuma la ñu lay def dara waaye bu ñu la xullee boo amul sago tuuti sa bopp mën na jaar doxe tur dëkk bi itam nañ jàppe ni ni mu ñoree sëñ bi moo raw noona nan ko dollee waggar te doollee jàmm yàlla te defar sunu jëmm te bàyyi caaxan yi caaxaan yi bari na li ñuy tudd sëñ bi te doonu ca dara bari na am na yoo xam sax dañ ko caa war a ruusa tudd am na barab yoo xam ne war nañ faa taxaw ngir tuddoo gi ñu tuddoo sëñ am na yoo xam ne war nañoo ruusa làmmiñ di ko tudd boo xam ne tax ñu di ko jëf waaye yooyu yëpp dangay gis ni rek daa mel ni nit ñi dañoo xamul te boo gisee ñuy tuddoo sëñ bi place fowukaay yépp noo koy fees boo demee dansine yi noo koy fees boo demee làmb yi noo koy fees boo demee stade yi noo koy fees bu sëñ bi wootee itam noo koy fees nun doo xam ba xam noonu moritu la nu doon te mag ñu doxewuñu woon noonu te sëñ Tuubaa nag fowut foo lu wut ànd kuy fo ku la ko gën a xam nag moo la ko gën a ragal ku la ko gën a xam rek moo la ko gën a ragal mat naa bàyyi xel bu baax a baax bu baax a baax a baax te ci lii xew ci nga man di natte ba bàyyi sëñ bi xel yàlla dara da koo sawul noo jàpp ni suñu borom du ko jëflante ak yow rek da ngeen a waaye bu ngeen yàggee tuuti nga xam ne yàlla dara sawul moo tax mu mat a bàyyi xel yoon wi nu sëñ bi xàllaloon mooy bëggoon nu doon jaami yàlla yu sax ci di ko jaamu ñu rafetal sunu jikko lool la señ bi bëggoon lool nak li fekk defuñu ko dañu xamni fi señ bi bëggoon ñu aw fa awagun señ bi nak da wax ni faraqtu iblisa wa jami al mafasid moy tàggoon iblis ak lepp lu bon lepp rek bayu dara lepp lu bon rek ci wa tàggoon ak moom yoonam nekkatu kon kep ku baax bokk lu bon top ci gannaaw señ bi yaa top ci mom way señ bi mu antuk yow li may xaw naa metti nag waaye seetluwaat leen ko bu baax a baax képp ku bokk lu bon topp sëñ bi yaa topp ci moom waaye sëñ bi moom àndut ak yow ndax déclaration la def faaraqtu la wax iblisa wa jamii al mafasid tàggoo na ma ak iblis bu la wóoree ni iblis moom sëñ bi defut ak moom nen na la wóor ni lépp lu bon it sëñ bi defu ak moom nen kon ku bokk lu bon di ko woo mën na laa bañ a wuyu moo tax léeg-léeg ñuy daje ci daje jàng xasay jàng alxuraan ñaan ba pare ñaan gi dara du ci nangu bu defee ñuy rafet njot naan dañu ko dencal ba ëllëg dañoo setut mat naa bàyyi xel bu baax a baax dañoo setut ku am toog yow bu la jiitoo nga di ko woo du la wuyu parce que am leen loolu rek mooy mooy li ci xew dañ leen góorgóorlu bu baax te fas yéene doon taalibe Sëñ Tuubaa ñu ciy tëje rek daal benn taalibe boo xamante ni daa dem ci benn baar gis fa fotob Sëñ Tuubaa mu xeex cab ni photo bi day génn baal bi boo ko nettalee tali bi yëpp dañ daan waa ji wax na dëgg photo bi Sëñ Tuubaa ci baal léegi ñu porté ko plainte ko topp ci yoon gaa yi xam ne du sedd ñu ñëw ci seen wax ko bëgg mu def ci intervention parce que jàpp nañ ñu ñoo ne ci yoon mooy photo ba daan ne ci barab ba waa ji doon xeex collègue pour ko ne benn tomb ci Sëñ boo ko amoon photo boobee sa bët bu ca barab ba moo jar laaj waa ji lu muy wuti ca barab waaw barab ba moo tax talibe yi bari na fu ñuy taxaw nan dañuy lëggeel sëñ Tuubaa dañoo xamul sëñ Tuubaa xamuñu sëñ Tuubaa dégguñu ko moo tax ñu fay taxaw waaye bu ñu xamoon barab booba képp duñ fa taxaw di tudd aw turam te talibe ba la jar laaj mooy lu muy wuti foofu bari na ñu ñuy def yoo xamante ni jàpp nañu neex na sëñ bi te dara safu ko ndax dara dëppoo wut ak diine dara dara dëppoo wut ak diine te lu dëppoo wut ak diine boo woo sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa néewu ci moo xam lamb ji la moo xam dansin ba la moo xam ne ak foneen koo ci mën a seen nag waaye li ci tëjee rek mooy juróom-ñaari tomb yooyu mu waxoon ni la yoon ak jaam ji ba yey leen na ko ñëpp analyser dañuy wax naa ngeen dégg bind naa bàyyi fi jëf naa ngeen gis yàgg diwuma fi siiwoo diwuma na ngeen def santaane yàlla yi muy seen sëriñ te bañ a def aw sant muy seen sëriñ wax naa ngeen dégg ñu doon dund jamonoom bu waxee ñu dégg ñooñu xam dégg nañ la wax la wax lépp jaamu yàlla képp la jëf naa ngeen gis ña doon ànd ak moom di dugg ci jàkka yi di rukkoo ko dem xamoon nañu jaamu yàlla dong la nekk ba biñ ko noppee gis ca la nekk bind naa bàyyi fi nun noo ko moom xise yi ñuy jox benn wér wala yu néew a ci wér bari na ci xise yoo xam boo ko nattee ci àndaari sunna da nga koy sànni da xam ne du dëgg ndax bàyyi benn mag mu baax nee na benn bis ci njariñ Sëñ Tuubaa nee te lépp di sobental diine di gën a woyofal ak jaamu yàlla di indil yàlla ak bokkaale loolu du mu teg kenn yàgg diwuma fi sëñ bi def na fi juróom-ñaar fukki at ak nangam siiwa diw man sëñ Tuubaa moom booy na suñuy nopp te saa yu ko tuddee ci jaamu yàlla rek lañ koy tudd mu ne na ngeen def santaane yàlla muy seen sëriñ kon santaane yàlla yi moo taxoon ñu topp sëñ Tuubaa moom la ñu mus di digal moom la mus di tere la neen doon santaane waaye bu leen def aw sant mu ne seen sëriñ ñun nag aw sant fi ne woon ma nekk fi nangam ak nangam sëñ diw nangam kenn ku ci ne ñu mel ne ay ay mbeuri lamb ak fasi course yo xam ko ne japp na ni sab sëriñ mom moy xut bu jamono te ñom ñepp ay bi Sëriñ touba dong nañ kenn ku ci defal yalla lu tax boo toogee ca kaw gaa top su amu amul touba rek tax ñu top leen amu ci kenn koy ber ni ko lu tax gaa yu la mu naan ma leen gën jikko wala dama leen jamu yalla daan daal touba mo mu ak ñom rek Sëriñ touba mom yi na te bayyi ko xel te wan ko njabot kenn nak kenn ku ma ci bayyi kenn ko japp ni defal na yalla lu bu toge ci kaw nga top su bu yónnee ngay dukki dukki jël sa añ di ko jox di yari ganaar di ko jox amul sëñ Tuubaa rek a tax war ma juñ ci mën a joxe sëñ tax jox la kon a doon murit bu ñu leen tegoon ci birig peese jël sëñ teg ci birig sëñ Tuubaa war na du ci kenn ci ñun léeg-léeg gis ki nit mooy xoob xoobi ñaa ko yaawee sëñ Tuubaa mu ne xew nem looy def yàlla noo ngi jéggalu bu baax a baax na wax ji lu ci xaw a diis it koy jéggalu jubluwuñ ci dal ci kaw kenn dañoo jubloo laa biire rek ne nun baaxuñ sax bay bay bonal kenn waaye buñ sanoon ñëpp danañ jag nu sagale ko Sëñ Tuubaa nit ñi dañoo war a téye ngir Sëñ Tuubaa waaye dañ dañoo téye dañoo téye sëñ bi ngir ñun dañoo war a téye sëñ bi ngir nun waaye dañoo téye ngir sëñ bi contraire bi lañ def dañoo war a téye sëñ bi ngir nun muy sunu melo ak sunu melokaan war naa tax ku gis Sëñ Tuubaa xee ku dégg Sëñ Tuubaa xeemem waaye fi mu ne ku dégg sëñ Tuubaa bañ ko ndax suñu melokaan ku dégg sëñ bi rek bañ ko ndax suñu melokaan loolu la mën a wax ci yoon fi mu ne nii boo wéetee gaa yi rek da nga naan déedéet lii moom ak nañ ma waxaat laneen luy ak murit ndax jëfin yi jëfin yu salte te suufee xas ku la gër beddi ku koobi la lekk yëfi jàmbu jox la doole nga war cee dimbali nit ñi nga koy xeexe nit lu ñëpp bokk nga ni ko pandeex ba pare naan du garaaw te dëkkee suuf gi yi njaaloo doo bàyyi jigéen fenn fu nit war doo nga jàpp ni kii moom sa gannaaw dong la jekk da nga ko place bala nga def ci dara ba wax yu ñaaw sooy dugg ci internet bi da nga ndax Sénégal ay jullit fi ne ci waxante lu bon ba tey jar na jataay jataay yoo xam ne boo fa toogee da nga naan ndax jataay bi kilifa diine ngi ci amul lenn looy yëg sa digg ak sa borom adduna rek lañ lay wax portable beeg ba ma demee réew sàngam joge fa jàll réew sàngam la soxna sàngam ba ma ko takkee wala diw mi nooy fexe ba ma jot ci yooyu rek la ñuy waxtaane yooyu du dara alali adduna lu mu bari bari boo nelawee fàtte nga boo dee lu mu bari bari nag laa boo nelawee fàtte nga loo amul boo dee ñàkk nga lépp loo ci doolul sa biir bàmmeel perte nga yi ñuy damoon matul ndam dara lu ci ndam yi ñuy damoo dara lu ci ndam ay biir kër oto tabax bu kawe ngay toj di tabaraat di defar rek jàppal ni ci mpax nga jëm moo xam ne wet nga cee tëdd doo wëlbati te ñeneen ñu la ko ëpp leen fopp ñoo nga fa tëdd te xamoo ci luñ ne rafet njoot ak yaakaar rek kenn ku ci mën a assuré ci diw sàngam mi ngi ci nàngam déedéet dañuy rafet njort ak yaakaar rek ndax suñ borom waxut dara kon nan waajal suñu bopp bala noo dem lay wi nag mooy kenn ku ci ne defaraat sa jëmm ba bu ëllëgee boo tase woon ak sëñ Tuubaa yow man xeyam boo ko ne adduna yow laa àndaloon bu la ne foo ma féete woon nga man ne ko ci lii lii lal féete waaye bari na lu ñuy wax suñu noo xam ne dara sëñ bi déw kon noo ngi jégalu bu baax a baax yal noonu suñu borom boole dimbali yal noonu yàlla gàttandu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu